jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci rajo réew mi FM 97.5 Euh, ñu nuyu leen bu baax a baax euh, am mbégte kontante ci euh, ànd bi nga xam ne yéen a ko ànd ak rajo Rewmi FM saa su nekk mbokki nag xam ngeen ne samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ñu ànd ak yéen ci seen émission pencum réew mi ngeen di si ànd ak Abdou moom Seck Mamadou Diawa Diallo mu nekk ci wàllu machine bi mbokk yi nag tey ñu invité ma soxna kan mu nekk avoca à ba pare moom mu nekk njiitul SOS consomateur SOS consommateur nag di euh, kuréel goo xam ne dafay euh, ñaxtul euh, askan wi ci seen dund ak ci seen nekkin maître ñoo ngi dellu am mbégte dalal la ci rajo Rewmi FM. jërëjëf maa ngi leen di sant ci invitation bi di nuyu seen auditeurs yi di nuyu aussi techniciens yëpp yi nga àndal di wax ni invitation bi maa ngi leen ci sant di wax ne que liñ ciy wax. yàlla na doon njëriñ pour askan wi. Euh, jërëjëf ma soxna kan xam naa ne tey nag euh, mbokk yi li ñuy waxtaanee euh, dina bokk ci li nga xam ne moo xew assemblée nationale bi mu commencé ba léegi dina si joxe xalaatam lu may loolu tamit dina ñu wax li nga xam ne moo jëm ci mbirum dund gi gi état bi ne wàññi nañ ko te ba léegi ñu gis ne njëg yu bare bare aussi wàññeekuwul Sénégal di wéy di am ay bor. Euh, loolu dinañu si waxtaan waaye tamit euh, dinañu wax ci mbiru Ousmane Sonko euh, aji Sarr maître Massokhna Kane ñu commencé waxtaan wi ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum njëg yi. dañu gis ne consertation gouvernement bu Sénégal defoon na ko si neewoon nañ gouvernement d'attaque et de combat waaye dund gi ñu waxoon ne dañ koy wàññi Euh, naam peut-être am na yu si wàññeeku waaye bëri na yoo xam ne ba léegi euh, wàññeekuwul yow ban jàngat nga ci def. Euh, li ma ci mën a wax mooy li askan wi doon xaar dëggantaan loolu defaguñ ko. defaguñ ko mooy lan. ndax bu fekkee ni dañu toll ci ay détails di wax affaire soble di wax affaire pomme de terre yooyu. du li nga xam ne moo gën a soxal askan wi bu ñuy wax wàññi njëkk parce que denrée yooyu marché bi ci boppam mooy réguler boppam maanaam marché bi moo na mooy kii ni euh, stock bi bare na ci marché bi prix yi wàññeeku obligatoirement mm-hmm. wala stock bi ñàkk na prix yi monté mm-hmm. loolu mooy régulation bi nga xam ne moom la marché bi di def Euh, wax nañ ci diwlin ak ceeb ak euh, suukar mais boo gisee itam liñ ci laal bu dee suukar bi suukar bu mokk bi rek la mais suukar beeg bi bokk ci te loolu problème la euh, diwlin bi aussi diwlinu huile de palme bi moom la ñu wax bi nga xam ne moo nekk en vrac ñu wàññi ci yooyu baax na ba tey wante doyul te du li tax ñuy wax dëggantaan wàññi parce que loolu boo ko wàññee euh, wàññiwuloo électricité ne nga wàññi nga tuuti ci affaire euh, frais de d'inscription scolarité yi mais mu des naka nga koy appliquer ci terrain bi électricité kenn tudd ko te électricité ñëpp xam nañ ni sonal na askan bi muy borom kër yi muy entreprise yi lu cher la ñoom ñoo wax ci seen bopp ni électricité Sénégal ci yi gën a cher ci àddina bi la bokk kenn waxul Afrique de ci àddina bi la bokk te loolu ñu ngi ko wax en deux mille euh, quinze bi nga xam ne euh, ñu ngi doon euh, def plan plan plan plan bi ñu mujj a def parce que xam nga dafa amoon plan takkal am amoon plan yeesal plan yeesal bi moom lañ mujjee def ñu ne ñu ne deux mille euh, quinze deux mille vingt ñu ne deux mille vingt ak plan yeesal boobu danañu am courant boo xam ne bii danañu coûter diggante euh, fukk ak ñaar ba fukk ak juróom-benn ci xaalis maanaam soixante ak quatre-vingts francs loolu amul tey la waalo gën a cher tey la courant gën a cher affaire santé bi. lu am importance la ci askan wi santé bi euh, ba ñuy def concertation yi dañu woon may nañu feeg weer pour ñu wax ci affaire santé bi mais tuddatuñ ko te xëy na lii ma wax dana tax ñu yëngal dossier boobu mais dafa mel ni booleetuñ ci affaire santé. lu euh, ñoom dañ ñëwoon commission yi nga xam ni ñoo doon wax ci soble seeg pomme de terre beeg diwlin beeg yooyu. dana am commission yoo xam ni danañ taxaw discuter entre acteurs yi ci affaire santé yi pour xool njëg yi nekk ci affaire santé njëg yi dafa bare parce que paj mi la analyse yi façon analyse yëpp muy rajo muy euh, kii euh, ensuite muy garab yi njëgu garab yi euh, ak li nga xam ne moom moo mooy hospitalisation yooyu yëpp ak loolu tuddaguñ ci waxaguñ ci dara maanaam maanaam te loolu dafa cher yëpp xam nañ ni askan wi sonn nañ ci loolu donc yooyu yëpp waxuñu ko ci. d'accord mais mais mais maître euh, maître sànq yaa ngi wax euh, suukar euh, diwlin ak ceeb peut-être ñoo wax nañ aussi ci ciment ak fer mais maître tey par exemple tey bu dee tey tonne maanaam litre diwlin nee nañu ñoo ngi koy jaay léegi vingt-quatre mille. litre diwlin. maanaam non asafla vingt litres diwlin yi vingt quatre mille te ñoom dañ ko fekkoon dix neuf mille dix huit mille dix neuf mille ñu yokkoon ko ba vingt neuf mille ci yenn localité yi trente mille mais est-ce que soo ko wàññee ba vingt vingt quatre mille est-ce que ba tey mathématiquement parlant est-ce que nekkoo ci yokk bi est-ce que wàññi bi tant que indiwoo ko ci dix neuf mille ya nga ko fekkoon indi ko dix huit mille ko ci wàññi bi. waaw loolu commercant yi wax nañ ko commerçant yi wax nañ ni euh, état bi prix bi muy wax prix boobu moo fi newoon mais daf ko yokk. moo yokk daf ko yokk maanaam dans la pratique li ñu wax ni moom lay jar léegi. jaru ko woon jaru donc lam daan jar moo gënoon néew. moo gënoon néew kon kon dañoo yokk. dañoo yokk ba léegi ñoom yokk. xam nga ñu ngi ci yokk bi mais ñoom dañu wax ni dañoo wàññi. donc xam nga loolu déjà amul. te loolu c'est grave te commerçant yi ñoom ñoo ko wax te kenn dindeegu ko waa direction du commerce intérieur dindeegu ñu wax boobu te wax bu rëy la parce que arrêté yi ñu jël euh, fixé prix yi daf ci am arrêté boo xam ne bi moom la concerné mais fekkoon na commerçant yi liñ doon jaay moo gën a néew ñoom ñu fixé prix boo xam moo gën a kawe li commerçant yi doon jaay donc loolu yokk la donc loolu bu fekkee ni erreur la pour ñoom nañ ko rectifier alors même mètre euh, même ciment bi boo xoolee tonne ciment bi euh, président Macky Sall ñoom ñoo ko fekk soixante mille euh, yokkoon ci cinq mille muy soixante cinq mille deux mille dix neuf mu demoon ba quatre vingt mille ñoom wàññi waar nañ ko ba ñëw na ba soixante dix mille mais comme ni ma la waxee sànq mathématiquement ba léegi. Euh, ñoo ngi si yokk bi ndax ñoom 60 mille lañ ko fekkoon man nag dama jàpp ne bu dee wàññi la ñoom dañ koy indiwaat ci 65 60 mille yi ñu fekkoon ton bi wala 59 mille ñu xam ne wàññi nañ mil francs waaye loo fekkoon 60 mille tonne bi fi mu nii mu nekk 70 mille nga tuddee ko wàññi vraiment daf may jaaxal man. ah ni mu la jaaxalee noonu la jaaxalee askan wi parce que ciment bi bu ngi ko bëggoon wàññi dëggantaan mm-hmm. dafa mu taxe yu ci laxas yoo xam ni. taxe yooyu bu ko état dindi woon rek ciment bi dina accessible te mënuñu ni affaire logement la ñuy toppatoo di wax affaire logement sociaux ñu waroon yombalal askan wi. Mm-hmm. ñu jënd matériaux de construction. parce que fi mu nekk ku nekk comme état bi defatul euh, ay logements sociaux comme ni HLM naan def ak SICAP bu njëkk mais léegi ñoom xëy na dinañu reprendre seen euh, fonction boobu. defar ay logements sociaux parce que état bi war na leen mën a jox ay terrain yu disponible mais euh, li ñu waroon def mooy comme ku am sa sa sa kër bu ndaw mhm. yaa ngi jéem a yokk ay ñaari néeg ñetti néeg pour parce que sa famille day day màgg mhm. nga nga du ñu xaj ci li nga yoroon ngay jéem a yokk waroon nañu wàññi ciment bi bu baax te bu ñu dindoon taxe yooyu may wax te am na ci tax boo xam ne day alimenter benn fonds de l'habitat maanaam ku jëndul ciment doo fay taxe boobu donc bu ñu dindi woon taxe yooyu état bi supporté ko ci la ciment bi di gën a yomb. mais mais état état mën na ko supporter état euh, non seulement am na feneen ci yeneen niche yu mu mën a jëlee xaalis par exemple bu ñu wàññi woon le train de vie de l' yaa ngi gis budget yi ñu yokk ak yooyu. donc loolu état bi euh, li mu bëgg wàññi ci ci ci kii moom mi ngi koy mi ngi koy yokk. ci ay euh, budget donc loolu daf di loo xam ne lii ñoom bu ñu bëggoon jubal dañuy commencé ci seen bopp parce que borom kër bu ne bàyyi leen euh, euh, yàq bi def ci jiitu mais bu fekkee moom day yàq ay dépenses de prestige ay dépenses yoo xam ni sax waaw gouvernement bu yaatu mu ngoog yow xam nga affaire bi donc yooyu yëpp bu ñu ko supprimer woon Euh, danañ mën a wàññi waaw danañ mën a wàññi bu baax euh, dund bi te dund bi dafa am importance ci askan bi te boo nee dund bi rek du lekk rek dund bi du lekk rek santé ngi ci jàng ngi ci fajo ki euh, nu mu tuddati matériaux de construction mi ngi ci école a ngi ci yépp ngi ci donc état bi wax dëgg yàlla li ñuy def nii pour ñun pëndal la dañuy jàpp ni loolu pëndal la rek euh, dañu def euh, ay réunions yu spectaculaires par le le chef de l'État ñu ne conseil national exceptionnel la mais conseil national euh, ña nekk ci ministère du commerce sax xam nañ ni te wax nañ ni du conseil national parce que conseil national de la consommation du chef de l'État moo koy présider ministre du commerce la texte yu wax ni ñoo ko moo koy présider te dafa te dafa am acteurs yu bare yu ci war a bokk yoo xam ni euh, journalistes yi sax ci lañ bokk ak ñeneen ak ñeneen producteurs yeeg yeex yëpp donc loolu non seulement du woon conseil national de la consommation mais conseil national de la consommation moo conseil régionaux yi amuñu pouvoir fixer ay prix te ni ñoom ñoo ko fixé xam nga loolu déjà njuumte bu rëy la parce que dañu wax ni conseil régionaux yi ci régions yi xam nga dañu fixé pour Dakar rek prix pour Dakar rek daal ni régions yi dem leen ci conseil régionaux yi ñoom ñooy fixé prix te effectivement ñoom souvent dañuy def erreur boobu dem def li ñuy wax conseil régional jël la nga xam ne moom la ñu fixé pour Dakar yokk ci transport daal di ni conseil régionaux yi lii la ñu wax comme prix or conseil régionau amuñu pouvoiru fixer prix lenn rek la ñu am pouvoir mooy joxe seen xalaat bu ñu joxe seen xalaat ñu boole yépp indi ko ci ministre bi ministre bi mooy jël arrêté fixer prix yi mais conseil national du fixe prix conseil régional du ñu fixe prix or ñoom loolu la ñu wax loolu erreur bu rëy la. d'accord mais maître euh, xam nga état bi ñoom euh, contrôle yi ñu doon def sax d'ailleurs man gisatuma ñuy def benn contrôle waaye euh, suukar si ak ceeb bi ak diwlin bi nga wax ba léegi nii euh, boo xoolee boutiquiers yi ñoo ngi yokk leneen loo xam ne bokkul ci li état bi tudd par exemple tey meew mi. même batterie yi nga xam ne moom ngay dugal ci dictaphone yi ñaari cent franc la doon jar léegi ñaari ma ngi jar deux cent cinquante maanaam yeneen yeneen prix yëpp yeneen prix yëpp boo xoolee presque dafa yokk. waaw parce que ñoom ñoo ñoom ñoo defloo boutiquier yi ñoo ñoo ñoo yokkloo boutiquier parce que xam nga dafa am denrée yoo xam ni vente libre la. Hmm. comme li nga tudd nii ay batterie ak yooyu mais euh, état bi comme euh, yoon daf ko jox pouvoir. Euh, secteurs yi bu fekkee tension am na ci benn denrée wala ay kii yooyu ñu réguler prix yooyu maanaam ñu réglementer prix yooyu soit ñu fixer ko wala ñu homologuer ko mm-hmm. mooy par exemple prix garab yi prix kii yooyu ak essence yooyu pris autoritaire yu état bi di fixé mm-hmm. bon mais dafa am yoo xam ni c'est homologué comme euh, prix ciment prix euh, fer bi Euh, denrées yi ceeb ak diwlin nag yooyu kooku état bi dafay homologué prix yi nga xam ne moom la mais boutique yi bu ñu leen bëggee jaayloo à perte comme ñoom li ñu wax kenn du kenn du jaay à loolu loi bi sax daf ko tere mais bu fekkee ni ñoom ba ñuy def concertation dañoo woo boutique yi ñu ñëw seeni association représentant yi ñëw bokk ci concertation yi wax li ñu war a wax yépp ñu pare jël yeneen mesures yoo xam ni euh, jotewul ak dara ñoom observation yi ñu def ñoom wax yi ñu wax te wax yi mooy mais booy fixé prix détaillant bi xanaa di nga fixé prix gros bi ak demi gros bi bu ko defee ñu xam ku ci nekk stade de commerce bu ci nekk ku ci ne sa prix de revient ak marge bi nga am pour ñu mën a xam ñaata nga war a jaayee waaye bu fekkee ni yow parce que euh, prix de vente égal quoi prix de vente égale prix de revient plus bénéfice du dëgg maanaam bu ñu nee sa prix de revient quatre cent cinquante la ñu ne la sa prix de vente téeméer la ça veut dire que yow sa bénéfice cinquante franc lay war doon mais bu fekkee ni yow sa prix de vente dafa nekk sa prix de revient dafa nekk euh, quatre cent cinquante ñu bëgg la ni foog nga jaayee quatre cent vingt xam nga du sotti non seulement amoo bénéfice mais dañ la bëgg a jaay loo loo xam ne lii yow li nga jënde moo gën a cher loolu mënta nekk donc il faut ñu fixer ku ci nekk ñu fixer la sa prix de revient parce que importateur bi dafa am fa muy jënde prix ba ak taxe douanier yi mu fi war a yokk ak yooyu ba ñu ne ko sa prix lii la boo ci tegee sa marge bénéficiaire cinq léegi lii nga war a jaayee grossiste bi bi itam bu ne lii laa jënde da ciy yokk ay frais maanaam transport en général ak marge bi nga xam ne moom la ko état bi di fixer ñu ne ko yow grossiste bi lii nga war a jaayee de sorte que détaillant bi bu ñëwee moom itam noonu lañ ko war a def. d'accord mais yow sa gis-gis ci gouvernement bi nii ñu doxee ci mbirum commerce mbirum jënd beeg jaay mi maanaam ñoom yàkkamte la parax parax yi wala ak ñàkk xam la wala ak bëgg a tuur la ndam askan wi yow loo loo si jàpp ci si seen doxalin nii. man yàgg naa ak ñoom te xam naa leen ministère bi. tële la ñu def te dafa yàgg. tële tële. Mhm. parce que c' est les mêmes fonctionnaires qui son là-bas depuis plus de trente ans. foo teg dañoo tële même même discours maa ngi ñëw même discours la ñuy tenir maanaam euh, coûte ko coûte rek foog ñu défendre état loolu affaire fonctionnaire la mën nañu leen comprendre. mais ministère bi dañ ko joxul moyen yi nga xam ne moo war mu mën a def liggéey bi normalement parce que ministère du commerce ministère bu rëy la war a doon ci réew boo demee Amérique boo demee France ak foo mënti dem ministère bu rëy lay doon parce que ñoom ñoo yore commerce bi lépp te xam nga boo nee commerce di nga ni commerce intérieur wax commerce extérieur ah, ñoom ñoo yore contrôle ñoo yore contrôle ñoo yor consommation bi maanaam stade de distribution yépp aussi ña fay intervenir ñoom ñoo koy kii depuis producteur bi walla importateur bi ba àgg ci commerçant détaillant bi stade yëpp ñoom ñoo ko war a surveiller euh, qualité denrée yi ak denrée yi mat maanaam doy maanaam du ñi pénurie am na Bakel alors que Tambacounda amul pénurie Njaareem amul pénurie ainsi de suite ñoom loolu lépp seen liggéey la. ñoo ko war a surveiller mais amuñu personnel bu bare pour surveiller loolu lépp li koy firnde mooy foofa defe naa ñetti direction moo fa am direction du commerce intérieur. direction du commerce extérieur ak defe naa euh, direction de euh, de l' administration DAGE li wax DAGE. Hmm. waaw donc yooyu moo fa am boo jëloon par exemple Côte d'Ivoire rek Côte d'Ivoire seen ministère du commerce rek am na fukki direction fukki direction boo xoolee seen organigramme da ngay gis ni ñi secteur yëpp parce que euh, commerce ministère bu transversal la maanaam. Euh, maanaam li nekk ci biir waaw depuis fabrication ak fu ñu ko mënti fabriquer moo xam produit alimentaire bu fini la moo xam produit du marché euh, kii ainsi de suite produit yooyu yëpp euh, ministère du commerce ñoo koy toppatoo ak acteurs yi fa nekk évidemment ministère de l' agriculture am na ci wàll ministère de l' am na ci wàll mais bu bu produit boobu ñëwee ba ci marché bi ca départu marché bi rek ministère du commerce foofu la war a intervenir déjà. d'accord euh, toppatoo yëpp yore consommation bi problème bu ci am ñoom ñoo war a taxaw. d'accord mais maître nee nga sànq euh, dañu tële mais est-ce que tamit waa ministère bi ñoom seeni carte bi ñoo ngi siy wax dëgg maanaam est-ce que ñoom réellement jàpp nga ne li ñuy wax euh, dëgg la bañ a wax loo xam ne du dëgg ci jëmale ko ci askan bi. bon ay nit ñu ñu ñu ñu sawar ci seen liggéey lañu. ay nit ñu baax lañu aussi parce que xam nañu fréquenté nañ leen jàmbaar lañu ci li ñuy def mais dañu toll foo xam ne mënatuñu indi dara lu bees parce que dañ faa yàgg la mënul yëpp def nañ ko li ñu war a def li état war a def bu ñu buggee ministère boobu dundaat mooy wut personnel bu bees. kuñ ko jox waxuma waxuma ñu dàq waxuma ñu dàq ña fa newoon de. Mm-hmm. xëy na ñooñu dañuy nekk di encadrer mais ñu wut euh, du sang neuf. maanaam ay ay ay borom xam-xam yu bare yoo xam ni ci secteur contrôle yeeg secteur kii yeeg yëpp dañ leen di indi mu nekk euh, personnel supplémentaire bu bu am importance maanaam bu fekkoon ministère bi cinquante nit ñoo fa ne war nañ fa def deux cent wala deux cent cinquante personnes yoo xam ni ay pàcc pàcc yoo xam ni. lu am importance mais président yow euh, yaa jiite SOS consommateur mais est-ce que ministère du commerce ñoo ngi lay consulter. ah déedéet consulté wu ñu de temps en temps nag euh, comme ni ñu wax conseil national de la consommation euh, xam ne dafa waroon am au moins une fois tous les trois mois euh, mais da ngay gis des fois dañ toog at wala at ak genn wàll kenn du woote conseil national de la consommation mais dañuy créer ay sous comité ak ay kii yoo xam ni loolu la ñuy liggéey. Euh, sous comité des des prix wala yu kenn xamul yooyu. mais mais mais lan moo tax. loolu waxul loolu waaw même bu dul conseil euh, national de la consommation ministère de du commerce est-ce que yéen ñi nga xam ne tey yéen yéen ay ñaxtul euh, consommateurs yi parfois même bu doon tey trois mois yi benn yoon wala deux deux ñaari yoon yoo xam ne ministre bi dina leen woo réunion wala fu ngeen ko mën a defee ngeen toog ngeen waxtaan ci biiri bët. bon li tax ñun ñu ne ministère bi vraiment deful liggéey bi ci war te dafa tële sax. waxuma ministre bu bees bi de parce que moom euh, kii yëgul tellement à l'épreuve mais ministère yi ministre yi ko jiitu am na ci ñoo xam ni en tout cas ci ñi mujj ñëw defuñu fa benn résultat surtout ki nga xam ni moo fa mujj jaar euh, jigéen jooju ñu ngi koy massawu parce que gars yi dañ ko dañ ko joxuloon benn moyen te itam euh, liggéey bi dafa rëyoon trop pour peut-être pour niveau bi mu tolloon xëy na mais joxuñu ko ay moyens joxuñu ko personnel bu doy euh, looloo tax deful benn résultat ah, mais mhm. bu ñu bëggoon vraiment bu fekkoon ministère bi mat na li mu war a def day commencer association de consommateurs yi nga xam ne mhm. seeni statut mhm. vérifier nañ ko ba xam ni seen statut ils défendent exclusivement les consommateurs ñu jox leen agrément agrément boo xam ne loi bi moo leen ko jox loi bi moo ni ministère dafa war a agréé dafa war a jox agrément association yi nga xam ne seeni statut nii la mel nii la mel ñoom au lieu ñu vérifier rek ñun ñu def demande pour ñu jox ñu suñu agrément pour que ñu mën a défendre consommateurs yi mën leen défendre en justice xam ni bu fekkee benn producteur de biens et services dafa def lu jaaduwul ñun ñu mën ko yóbbu tribunal mais tant que amoo agrément boobu munoo yóbbu kenn tribunal xam nga loolu déjà ñoom ñu ngi gàllankoor suñu liggéey te fi ñu ko wékk xam nañ ni jaaduwul parce que yow duñ la ni euh, association de défense de consommateurs yi da nga leen war a jox agrément mais il faut ñoom ñu am statut yoo xam ni c'est conforme euh, au statu yi nga xam ni yow ministère yaa ko war a élaborer yow defagoo statut yooyu yu bees yooyu nga bëgg ko appliquer ci association yoo xam ni depuis vingt ans depuis euh, vingt cinq ans ñu ngi fi di fonctionner normalement xam nga loi bu ñuy jëlee tey loi loi bi du rétroagir mm. loi bi c'est pour l'avenir xam nañ association bu bees bu ñëw fekk loi bi nekk fi association bi ñëw nga mën ni ko ah yow de statut yi nga ma indil am modèle statut mi ngi nii euh, foog nga defar statu yu méngoo ak modèle mais koo xam ni kii dafa yore ay statut di fonctionner légalment am personalité juridique depuis vingt ans ou vingt cinq ans ñu ne la euh, euh, association bu bu ñu war a agréé il faut ñu euh, il faut mu am statut conforme nga bëgg ni kële na annuler ay statut defar statut bees xam nga loolu jaaduwul parce que kooku am na existence légale ba pare yow kay li nga war a càmbar mooy est-ce que statut yi mu yore depuis vingt ans ou plus est-ce que conforme na ak esprit wu li loi bi laajte léegi maanaam défendre exclusivement euh, les consommateurs xam ni doo ci def doo def politique amuloo ay activité politique amuloo euh, ay entreprise yu la jox xaalis ainsi de suite yooyu yooyu la ñu war a vérifier mais ministère bi déjà gàllankoor na liggéeyu association de consommateurs yi te loolu ci tële la bokk mais yéen ñun par exemple ñoom bu ñuy woowee réunion ñun du ñu dem parce que on dañ leen ni tant que joxuñu neen agrément ñun ñoo njëkk a demandé SOS ñoo njëkk a demandé agrément depuis plus d'un an ministre bu bees bi bi mu ñëwee ñun wax nañ ko ni ko jox ñu suñu agrément ton toogu ci nag d'accord tontowu ci. jërëjëf euh, maître Massokhna Kane mbokk yi moom la ñu invité tey ci rajo réew mi FM euh, ci seen émission pencum réew mi mais maître sànq ñu wax nag euh, une minute wala deux minutes jàll ci beneen sujet sànq yaa ngi doon wax courant bi ni mu chéré faju gi aussi dafa cher ci Sénégal. kenn waxu ko ci kenn waxu mais li nga xam ne aussi moom mooy ndox mi nit ñi dañ ko dut bàyyi xel waaye man mii di wax ak yow maître Massokhna kan man. Euh, fi ma dëkk studio doon naa fi fay mille francs ndax ndox mi defuma si lu dul sangu naanuma ci euh, fóotuma ci mais léegi yokk na maa ngi ci léeg-léeg ay mille ay mille ay 5000 francs ci koo xam ne yow 2000 1000 francs nga doon fay 2000 francs nga doon fay te lii dafa bëri ñu koy jàmbat beneen bi aussi boo tëjoon sa appartement tey dem tukki boo ñëwee boo fa fekkee bon de bu njëkk ay 4000 mille la doon léegi yokk nañ ko ba 8000. ba ba ba par francs hmm. loolu aussi euh, lan moo ci saxalaat maître. ndox bi li ci nekk mooy ñiñ ko jox dañu dañu tële mënuñu ko yore ndax SDE mi fi nekkoon ñu koy coow ñii fi ñëw ñoo pire SDE ñoo leen tane fuuf parce que ñii ñu ko jox muy seen o xam ni waa Suez la Suez munuñu distribuer ndox du seen métier seen métier mooy defar ay usine seen métier du jaay ndox jaay ndox spécialité la te ñun dañu wax ni euh, depuis le début Suez waruñu ko woon jox ndax Suez dafa am Suez dafa amee scandale ci àddina bi ci affaire u ndox Suez ñoom ñoo doon construire KMS 3 donc mënoon nañ leen bàyyi ci loolu même bu fekkee dañuy lancer appel d'offre amoon na ñeneen Suez normalement li mu proposé woon d'abord c'était moins cher ensuite euh, quantité bu doy ndax euh, KMS 3 bi waroon na indi deux cent mille mètres cubes d'eau ndox boo xam meilleure qualité gis nañ ni biñ fi nekkee ba léegi euh, deux cent mètres deux cent mille mètres cubes d'eau supplémentaire boobu dañ ni cent mille mètres cubes yi mooy disponible ci temps yu njëkk yi déjà taxul ndox bi doy ndox bi qualité bi baaxul ñëpp xam nañ ko des fois bu ñu indi la ndox boo xam ni kenn mënu la ko buñ la ko wanee ci butéel da waaru da naan noonu kenn ñemeetul naan ndox même ñoom ci seen bopp ndox bi coulé ci robinet bi ñoom ñemewuñ ko naan dañuy jënd ay euh, eau minérale mm-hmm. te loolu double dépense la pour consommateur yi parce que ndox bi nga xam ne moom nga waroon mën a naan ñemewoo ko naan waxantuma la di ko jox sa sa sa doomu parental wala nga koy jox jigéen ju ju ju wéradi mm-hmm. donc euh, déjà loolu yokk seen compteur yi li ci ëpp baaxul seen compteur yi dañoo amoon ñaari marque compteur bu tudd jel ak bu tudd Itron jel bi bi ñu defee expertise bi parce que nit ñi dañ doon joytu facture yu cher ñun ñu demandé nañu expertiser compteur yi bon euh, bi ñu expertiser compteur bi ñun fa la ñu fekk SOS consommateur ak yeneen ñaari association de consommateur vraiment euh, fekke nañu expertise bi expertise bi fii lañ ko defee Ndakaaru ñu ne compteur gel yi baax na mais compteur itron yi baaxul compteur itron yi y avait 17000 compteur itron fukki junni ak juróom-ñaari junni compteur yoo xam ni ñu ñu ngi ko doon installé ci kër yi te baaxul expertise bi ni baaxul ñoom ñu demande contre expertise xam bañ ne baaxul rek lañu waroon dindi yëpp teg wut yeneen compteur yu baax installé ci ay compteur jël wala yooyu parce que loolu moo yokkoon augmentation tarif ndox yi facture ndox yi alors donc euh, compteur yooyu ñu ñu ne nañ def contre expertise ñoom ñoo ko demandé ñu dem Suisse pour contre expertise bi ñun amoon nañu représentant pour euh, consommateur ñun ak beneen association de consommateur ñun ñoo demoon Suisse pour contrôle ba ñu demee foofu yóbbu ñu échantillon yi ñu defoon contrôle bi tuuti lañ ci jël yóbbu. mais CNO amoon nañu représentant. non seulement CNO ñu nga fa woon parce que CNO dañu bëggoon siège représenté leen ñun ñu bañ ñu ne non siège waruñu leen représenté o ñoo war a ñëw CNO yónnee ndaw mais terewul siège mu nga fa woon te siège yoonam newu ci parce que siège euh, euh, partenaire la rek dafa bokk ci ci ci CNO mais du moom mooy CNO moom. waru foon ne mais ne nañ fa et puis li gën a garaaw mooy bi ñu defee contre expertise bi ba pare ka nga xam ne moo représenté woon ministère bi daa ànd ak waa Suez dem dem euh, kii Suez siège euh, Suez en France waaw diggante boobu lan moo fa xew ñun donc dañu am ay doute parce que après dañ finalement compteur yi baax la ñun ba léegi dañu gëm ni compteur yooyu baaxul mais comme y avait 17000 compteurs ñu koon sànni moom la ñuy installé et li gën a garaaw ci ndox bi woy yow di nga toog ñu yónnee la facture ni la am nga ay arrière ñu ne la am nga facture boo xam ni y a mois wala facture daaw boo xam ne ba fayoo ko defal la ko ci sa kii mais naka ngay toogee daaw ba ren am benn facture boo fayul maanaam am na yu ko jiitu nga fay ko am yu ci tegu nga fay ko ñu ne la par exemple facture février 2021 fayoo ko mais fay nga janvier fay nga ba janvier fay nga mars ba ba léegi mais facture deux mille vingt et un euh, ma euh, février deux mille vingt et un fayoo ko yow bu fekkee yow nga fayoon par euh, Wave wala par kii Orange Money wala nga fayoon en espèce ba pare gardé wala kii bi wala sa facture réer da ngay obligé fayaat loolu dal nañu bare ak yeneen ak yeneen problème yoo xam ne ci ndox bi la nekk te effectivement comme ni nga ko waxee ndox bi problème la pour sénégalais yi war nañ ci wax aussi. Euh, jërëjëf euh, maître Massokhna Kane mbokk yi moom la ñu invité tey ci rajo Rewmi FM euh, maître ñu wax lu gàtt ci assemblée nationale assemblée national fan yi dafa am coow lu fa am ndax dafa am ñaari député ku tudd Massata Samb ak ku tudd Mamadou Niang ñu gis ci image yi ñu daal di attaqué dóor benn soxna député bu bokk ci Benno Bokk Yaakaar coow loolu xuloo bi ak xeexoo jàppante bi tolloo doole bi am assemblée nationale ban jàngat nga ci def. tolloo doole bi moom euh, lu ñuy rafetlu la parce que dina tax mu mën a am démocratie mu am équilibre ndax li fi daan xew mooy majorité euh, mécanique boo xam ne bii lu ñëw ñu wote te ñu xool sax li ñuy wote lan la gis nga benn exemple mooy budget forces armées euh, masul am débat mais bi yoon am na débat te loolu avancement la ci démocratie maintenant xuloo yeeg euh, saagante yi loolu lu ñaaw la dañ koy ñaawlu mais ay xuloog yooyu ci assemblée c'est normal boo xoolee Europe ak fépp euh, assemblée yi euh, danañ xuloo des fois sax ñu bokk sante loolu mënu ci ñàkk mais li ñu gis image yi ñu gis télé ay député yu góor di dóor jigéen loolu lu ñaaw la loolu ñépp ñaawlu lañ ko même bu leen soxla saaga woon sax waruñu ko dóor euh, am na neneen lu ñu waroon mën a faj saaga yi ko dóor physiquement bay wéq parce que wéq kooku dafa garaaw bon heureusement defe naa wéq bi daalool bu baax mais ka doon wéqee sax moom mujj na daanu faf ci ci li ñu gis bon parce que xëy na gars yi dañ ko pousse et tout ça là mais loolu ñaaw la loolu ak lu mu leen mënti wax il est vrai que xaw ma xaw ma ban façon saaga la saaga parce que dégguma saaga waaw Euh, saaga sa sëriñ sa yaram tàng loolu mën nañ ko comprendre aussi loolu mën nañ ko comprendre euh, looloo tax saaga sëriñu jàmbur wala saaga euh, religion wu jàmbur danger bu rëy ngi ci parce que lu ne mën na la cee daal lu ne mën na la cee daal gis nañu attentat yu bari yu am dans le monde ay nit ñoo xam ne ñii dañuy wax benn wax boo xam pour ñoom du wax bu garaaw mais wax bu garaaw la ci ñi nga xam ne Euh, ñoo ñoom lañ ko waxal gis nañ fi ay Salman Rushdie ak ay yu kenn xamul ñoo xam ne rey nañ leen ci ay wax yu mel noonu donc euh, loolu aussi jaaduwul ngay wax ci sëriñu jàmbur wala ngay wax ci kilifa wu jàmbur ci kilifa diine wala yu mel noonu waaw ah, loolu moom lu la ci fekk rek mm-hmm. dafa da ngay xam ni am na li ñuy wax excuse de provocation donc dafa am provocation parce loolu yoon provocation la vécu de sorte que ku ku ku ku xeex parce que dañu la saaga wala dañu la saaga ndey wala yooyu euh, saaga bi bu fekkee ni c'est établi loolu moom la ñuy wooyee excuse de provocation maanaam dana wàññi daan yi ñu la waroon daan parce que dañ la provoqué. Ah, donc d'accord léegi maître euh, euh, journaliste Pape Alé dañ ko téye ci kaso bi tey jii lañ ko waroon a déglu sax ci lu jëm ci wàllum xóotal ci ci mbir mi jàpp Pape Alé ñu bari wax nañ si yow ban jàngat nga ci am. waaw euh, li ma ci am en tant que euh, consomateur damay wax ni euh, liberté de presse dafa am am droit à l'information am ci àddina bi li ñuy wax journaliste d'investigation moom li mu def liggéeyam la def wuti na ay information même secrète te man document yi ma gis gisuma ci ñu def ci soo soo bi ñuy wax euh, euh, def def euh, secret défense mm-hmm. wala wala ñu estampillé ci kii nu mu tuddati waaw gisuma ko ci loolu laa doon xool man en tant que jurist loolu laa doon xool gisuma ci loolu mais droit à l'information kooku citoyen dañ ko am journaliste dafa am devoir te moom njëkkeewu ko fi njëkkeewu ko fi te du ko mujjee journaliste d'investigation yi am na ñu Sénégal yàgg na fi am mën nañ ci citer ku mel ni Latif Coulibaly ak ñeneen donc Pape Alé liggéeyam la def liggéeyam la def c'est normal maintenant liggéey boo gis dafa am ay risques risques yi mooy ñu jàpp la mais niñ ko jàppee jaaduwul ñëpp xam nañ ñu jaaduwul ku jàngul droit sax xam nga ni liñ ko jàppee jaaduwul parce que en aucun cas source yi mu am du ko du ko du ko du ko wax mais ñoo koy li ñu waroon def mooy seet loolu mu wax ndax dëgg la wala du dëgg loolu la ñu waroon seet loolu la askan wi soxla. nan lay ñëwee ci loxoom. waaw askan askan wi li ñu soxla sax mooy ñu xam ndax. li wax dëgg fee yi muy dénoncé dëgg la wala du dëgg. Hmm. loolu moo am importance pour askan wi. loolu la ñuy laaj. jërëjëf euh, maître Massokhna Kane euh, yow tamit nga bokk ci avocat yi euh, Ousmane Sonko yi xam naa ne duñu doo nangoo dugg sax ci li nga xamante ni moom mooy dossier bi dëgg-dëgg waaye fan yi ñu génn yéen da ngeen doon sàkku bala ñoo ñëw ci confrontation bi mais fan yi passé da ngeen doon sàkku yéen ku ci mel ni capitaine Touré ku ci mel ni Mamour jàlloo Euh, Serigne Bassirou Gueye ñeneen ak ñeneen ñu bari ngeen sàkku euh, ñu ñu ñu déglu leen euh, ñan ngeen bëgg ñu déglu leen yéen. waaw loolu nag émission bi mënuma cee wax dara ci loolu lu tax mooy man quand maa ngi bëgg yàgg ci métier bi def naa ci quarante ans léegi donc war naa xam métier bi devoir yi ci nekk ak droit yi ci nekk boo ma invité. comme président association de défense de consommateur waruma wax ci loolu ñaareel bi en tant qu'avocat xam ne je suis dans l'affaire ñu nekk collectif am porte-parole man aw ma droit wax ci dossier boobu. loolu mooy. loolu mooy problème mais da ngeen bind communiqué ma liir seen communiqué ngeen ne ku mel ni capitaine Touré euh, bëgg ngeen ñu déglu ko léegi dégg naa doyen des juges war na koo déglu loolu xanaa am ngeen sa satisfaction. ah loolu alhamdulilah mais ñi ñu war a déglu bari nañu de defe naa du kooku rek lañu war a déglu am na ñeneen ñoo xam ni war nañ leen déglu bu ñu bëggee affaire yi leer te defe naa sénégalais yëpp affaire bi leer lañu ñu bëgg waaw ah, ñun nag avocat yi nga xam ne ñoo nekk ci affaire bi. Euh, moment bi ñu war a wax ci dossier bi bu jotee danañ ci wax bu soobee yàlla te yéen ñëpp di ngeen ko dégg te dina leer bu baax. mais euh, man pour le moment mënuma wax ci dossier boobu mais daal xam naa ne ñi ñu war a déglu euh, du rek capitaine Touré bu fekkee bëgg nañu dëgg feeñ dëggantaan ñu xam li xew yëpp du moom rek la war a déglu. yéen xanaa fi mu ne nii waxatu leen waxu viol mais waxu ñan ñoo nekk ci complot bi xanaa. bu dee euh, complot am na. en tout cas li li wóor mooy euh, li ñuy wax ne lu ne fàng kenn du ko jeex hmm? complot lu tax ñu jàpp Pape Alé lan la def bañ jàppoo. dañ dafa génne ay xibaar yu warut a génne. xibaar yooyu du xam nga xibaar yooyu lan xam nga xibaar yooyu lan la donc il y a cette thèse du complot et comme je dis bu ñu bëggee dëgg gi feeñ daal lépp. ñëpp lañu ñu war a déglu ñi ñu war a déglu bari nañu du rek euh, capitaine Touré capitaine Touré war nañ ko déglu mais ñeneen ñi ci tudd aussi bu ñu bëggee fi leer danañ leen déglu. ay Mamour Diallo yooyu. ah ñi ci tudd ñëpp daal war nañ leen déglu bu ñu buggee bu fekkee dëgg rek la ñuy wut war nañu déglu ñi ci tudd ñëpp parce que loolu mooy devoiru juge bi mooy devoiru justice. mais yéen itam war ngeen a andi luy firndeel ne complot la. mais loolu kay loolu loolu. wala enquête interne bi firnde loolu loolu loolu firnde yi kay mi ngi mi ngi ci dossier bi te nit ñi xam nañ ko nit ñi xam nañ ko nit ñi xam nañ thèse boobu thèse boobu ñuy wax nit ñi xam nañ li ci ne te bu ñu dégloo ñi ñu war a déglu yëpp dana gën a leer. d'accord mais keroog mais keroog confrontation am na ak keroog kay def ngeen sorte nag bi ngeen defee confrontation pare maître Bamba Cissé ak euh, maître Ngom ñëpp wax ñëpp wax nañu. ñoom ñooy porte parole yi ñoom ñoo wax ñoom war a wax. non mais ñëpp da ngeen. mais mais confrontation bi moom. mais ñu ñu bari nee nañ du confrontation sax maître Abdou Dialika nee na confrontation amu fa. ndax ndax ndax euh, ndax avo ndax Sonko tontuwul ñoom seen i question nee na ñoom. Ah, confrontation lu tax tontuwul seen i question laaj leen ko lu tax. tontuwul ci seen i question non non Sonko da ne maître Abdou Dialy Kane li tax du ma ko tontu mooy moom dafa waxoon ci interview nekk am na euh, toutes les preuves sonk ne bu génnee preuve yi teg ko ci table doyen des juges dinaa ko tontu. mu ne maître El jouf dañ ko tuumaal ci lu jëm ci wàllum viol moom place am du woon foofu mu ne procureur euh, ka fa toogal parquet procureur euh, bi fa nekkoon dañ ko tudd ci complot moo tax mu ne mu ne mu ne du ko tontu léegi est-ce que loolu. Euh, luñ mën a jàpp la. ah bien sûr kooku kay moom xel xalaatul bañ ko jàpp sax loolu ñoom kay nañu dindi li mu wax. mais am na sañ-sañ bañ a tontu. mais bien sûr yow bu ñu la woowoon euh, tey tribunal wala police bu la neexee doo tontu bu la neexee benn question nga ne ma ci tontu loolu moom c'est un droit. le droit de garder le silence kooku dañ la koy wax sax vous avez le droit de garder le silence. loolu mais mais yow mi nag. Ah, ah ok wax jàngoog. ku tuumal ke yaay indi preuve te ku wax ne ku wax ne ku wax ne man euh, am naa preuve yëpp ah nga ñëw ci kanamu enquêteur bi génnewoo preuve yi ñëw ci kanamu juge d'instruction génnewoo preuve bi kañ ngay génn preuve bi procès public ah procès public pour mu am il faut mu am ay preuves yoo xam ni. ay éléments ay éléments de preuve yoo xam ni juge bi dina ci mën a sukkandiku pour nii na am procès mais boo ko génnewul jox ko juge bi koo koy jox naka la juge bi di décider que dafa war a am procès wala du am procès te yow nga ne yor nga say preuve te joxe ko joxoo ko juge bi koo koy jox joxoo ko enquêteurs yi joxoo ko juge bi loolu mooy wane ni preuve amul yi ñuy wax preuve nañ ko génne génne ko koy jot na ba bay bay bëgg a passé sax. mais keroog nee na du leen tontu du leen tontu am na sax lu ma lire ci presse bi ñu ne dafa traité sax maître Bamba Cissé que des militants Pastef. waaw loolu bu neexee. bu a tontu. kisa aji ah moom <laughs> moo tuumalaate moom moo tuumalaate comme ni nga wax moo war a indi ay preuve mais comme comme comme ne yoon na yor na ay preuve avocat yi ni yor nañu ay preuve waay waay waay waay waay mais da ngeen leen waroon laaj preuve waay waay ah laaj nañ leen ko <laughs> loolu tax preuve yi kay ñoom buñ ko amoon kenn du leen ko laaj ñoo ko naan bëcc ci taabal ji dès le départ defuñu ko lu tax defuñu ko laaj leen leen lu tax yow ngay tuumal nit ni am nga ay preuve te preuve yi mënoo ko génne génnewuloo ko ci ci enquête ba génnewuloo ko ci instruction ba waaye kañ ngay génne preuve yi bu ñu clôturer dossier bi ba ni euh, preuve amu ci boobu ngay génne say preuve faut être sérieux loolu la. mais mais mais maître euh, dama déggoon tamit maître Bamba Cissé ak euh, waa Pastef ñoom nee nañu jamono ji daal ñoom non lieu la ñuy sàkku. ah <laughs> dangay seet rek lan moo ci war comme preuve yi. amul tey ñi ko yore nee nañ duñ ko génnee gum léegi lan lañu war a def yow buñ la doon tuumaal tey. mais fan lañ war a génnee ay preuve maanaam ci ci enquêteur bi lii ma lay laaj nag. waaw lii ma lay laaj nag ma la ko en tant que avocat Sonko. dama la ko laaj en tant que avocat du peuple euh, avocat consommateur yi euh, ndax consommateur yi ñoo ngi lay déglu euh, tey preuve bu lay gendarmerie di enquête wala bu la police di enquête nga war a génne preuve wala da ngaa war a bàyyi ba dem ci juge d'instruction bi. génneel ko preuve fan nga war a génnee preuve wala tamit dangay bàyyi ba dem tribunal ba génne ji fan nga ko war a génnee. waay waay sëñ bi loolu yomb naa yomb naa tontu man bu ma la nee yow yaa jël sama un million xool la rek mu neex ma man la yaa jël sama un million dañ la naan ana preuve bi kay boo ñëwee police comme yow da ngaa plant plainte war a indi say preuve ni diw mii moom sàcc sama un million. preuve yooyu kay kii ci ka ngay porter plainte moom ngay jox preuve yi journaliste yi sax buñ la ko laajee war nga leen génneel ay preuve mais ka nga xam ne moom moo jot sa plainte moo war a jot say preuve def ko ci dossier bi bu jaree ñu yóbbu waa ji ci juge ñu ubbi information information boo gisee ñu koy ubbi rek c'est que leeroon information mais bu leeroon flagrant délit lay dem audience simple lay def simple lay doon loo xam ne lu leer la loo xam ne preuve yaa ngi ne kooku dafay neex a àtte mais yow boo nee man kii jël na sama un million hmm? maa ngi denc samay preuve dem porte plainte te te kama porter plainte indiwuma ko ay preuve mu am instruction nga ñëw devant le juge d'instruction indiwoo say preuve ah waaye sëñ bi preuve yooyu lu tax génnewoo ko ak kañ nga koy génne. mais est des juges laaj ko preuve yi. ah oui mais attends waruloo sax xaar ñu laaj la preuve yow yaa porté plainte bëgg ñu rendre la justice ni diw daf ma tooñ yaa war ni preuve yaa ngi nii waaye doo denc preuve yi rek naan maa ngi denc samay preuve maa ngi xaar xaar ba kañ xaar ba kañ ki nga jox plainte bi porté fa plainte joxoo ko say preuve preuve mooy firnde du dëgg joxoo ko say preuve. ñu dem ca juge d'instruction ba joxoo ko say preuve waaw preuve yi lu tax nga koy nëbb lu tax nga koy denc bu fekkee am nga ko kay yomb na nga génne preuve yi. moom daal mais procès public pour mu am procès. xam xanaa nga joxe. <laughs> waaw mais mais lan moo leen xam nga lu ngeen leen war a laaj yéen journaliste yi. Ah. preuve yooyu lu tax génnewuñ ko dès le départ ba léegi ba léegi li ñuy wax nii génneeguñu preuve. laaj leen leen loolu. te te te doyen de juge ci ay preuve la sukkandiku pour yóbbu ko jugement. jeex na. wax ji yëpp a ngoog lu tax génnewuñu preuve yi c'est c'est normal que kii ni euh, diw da nga ni dès le départ yaa ngi yor preuve yëpp génneel preuve yi. d'accord comme ça boo ma posé ay question man ma. d'accord jërëjëf maître Moussa Magane waxtu wi euh, ma ngi jeex léegi dernière question rek mbirum troisième mandat euh, yow nga nekk kilifa ci réew mi. nga bokk si ñi nga xam ne aussi nit ñi jox nañ leen cer dañ leen di déglu yow boo xelal président Macky Sall ci lu jëm ci ñetteelu candidature ndax gis nañ ne ay jegeñaaleem ñoo ngi ko ci jiñax ci troisième candidature te ñi nga xam ne am nañ lecture xam nañ ne du loo xam ne mën naa jural réew mi jàmm su jéemee ñetteelu candidature yow lan moo ci sa xalaat. li ma ci mën wax en tant que sénégalais. nekk avocat depuis quarante donc juriste citoyen bëgg jàmm ci réew mi nekk mag aussi fekke lu bare li ma mën a wax mooy la morale comme le droit aussi bien sur le plan moral ndax wax yi ko jiitu yi président wax yépp ak li ni moom la def pour verrouiller constitution bi nii la morale ni le trois na permettent un troisième mandat nit ñi nag ñu ngi wax ay troisième candidature mais man dama gëm ni président ñi nga xam ni ñoo koy wax waxu troisième mandat dañ koy dugal dañu koy dugal li mu waroon def mooy ba mu waxee waxam ja mu waxoon ba pare ak li nekk ci constitution bi leer nañ hmm? leer nañ li mu waroon mooy fexe ba organiser euh, élection yu normal moom mu dem toog bu buggee dellu si waajaat dellu si parce que am na droit bu jeexalee ñaari mandam dem toog ba ñu fal keneen bu kooku paase moom mën na duggaat ni damay laaj loolu am na ci droit parce qu'il est jeune aussi hmm. donc Euh, bu ma doon mbokkam de wala ma nekk conseiller am. Mm-hmm. loolu laa koy wax. constitution bi kon mayu ko ko yow en tant que juriste. ah non non ci sama lecture noonu mayu ko ko. boo ko doon conseiller parce que gars yi dañuy wax ay ay deuxième quinquennat xam nga loolu affaire yu njublang la affaire yu tappale la kenn waxul deux deuxième quinquennat wala deuxième boo defee sept benn mandat bu sept ans def beneen mandat bu cinq ans muy ñaa ñaata mandat la. du ñaar. waaw lan la loi bi wax. nul ne peut faire plus. deux deux mandats consécutifs waay waay loolu waaw waaw waxul durée loolu kay ku dul juriste sax xam nga ko c'est une question de bon sens ku dul juriste parce que même amul interprétation non non amul inter non amul non amul interprétation possible amul interprétation yu fi tappale la gis nañu euh, la députée ki euh, euh, ki xam ni ci ñoom la nekkoon Aminata Touré Aminata Touré qui qui est courageuse amee Aminata Touré li mu wax assemblée leer na moom dafa interpellé ministre de la justice te lii yëpp nett ci nett lay mujj de yal na doon nett li bu rafet mais ñëpp xam nañ ñu du affaire ay quinquennat ay septennat déedéet. affaire ñaari mandat la wax yu tegaloo ñaari mandat yu tegaloo kenn amul droit def du ko ëpp loolu kay leer na. loolu leer na nañ d'accord mais maître ñi ji tey bu ko président jéemoon bu ko jéemoon tey Sénégal ah, lu fi am rek il est responsable ah, ah oui oui coow lu fi am rek il est responsable mais ñii njort na ko Wade defe woon ah. coow am ci c'est lui qui responsable mais ñii njort ne dañoo bëgg fexe ba yàq dossier Sonko pour mu bañ a bokk ci élection présidentielle 2024 incha allah loolu ban gis-gis loolu mën na nekk parce que kuy seet sax ni moom lay niru parce que euh, candidat potentiel yi fi amoon yëpp noonu lañ def fexe ba éliminer leen kii moom buñ ko mënee éliminer euh, danañ fexe ba du bokk waaye nag yàlla rek moo fi nekk te ku gëm yàlla la moom. Sonko waaw ku gëm yàlla la te gëm nañ ni yàlla mooy fal. jullit bu nekk war nga xam ni yàlla mooy fal ku mu ni sa nguur jeex na jeex na ku mu ni jeexagul jeexagul waaye nit ñi nañ gëm yàlla. te xam ni lépp yàlla la. voilà. jërëjëf euh, maître Massokhna Kane euh, kon nga tàggoo ak mbokk yi. waaw euh, di sant ñëpp di di gërëm di wax ni yenn journalistes yi seen liggéey dafa am importance parce que ku nekk ngeen di tàllal seen micro nit ñi wax sénégalais yi nag ñoo war a am dégg-dégg parce que réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk ah, te gis nañu réew yi ñu wër ni mu mel ni muy tàkke te li ci ëpp troisième mandat moo ko indi jéem a defaraat constitution bi pour génne troisième mandat te loolu wax dëgg yàlla nguur jarul réew yooyu ni mu ni mu mel nañu fexe nag ñu Sénégal comme dañuy wax ni Sénégal c'est particulier ndax nitu diine yi fi nekk et tout euh, nañu góorgóorlu ba réew mi bañ a tàkk kenn bañ ko taal te gëm nañ ne affaire troisième mandat mën na taal réew bi ñaanuñu ko mais mën na taal réew bi voilà. jërëjëf maître Massokhna Kane mu nekk euh, avocat ñu ràññee ko lool ci réew mi euh, mu nekk tamit njiitul SOS euh, consommateur di ñaxtu askan wi ci seen dund ak seen nekkin mbokk yi moom lañu ñu invité tey ci rajo réew mi FM ci seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck mbokk yi ñu leen di jox dig daje samedi bi di ñëw incha allah.